tey daanaka Sénégal ñu ne am na quatorze régions administratives mën nañ jàpp ni ñu ngi liggéey ci juróom ñetti régions yooyu de manière intense suñu inter suñu intervention nag dina am yeneen région yi mu laal boo xoolee nag fi nga xamante ne fa lañ tàmbalee liggéey bi mooy Pikine Guédiawaye Kër Massar ak Rufisque liñ naan la banlieue foofu tamit ñuy liggéey plus spécifiquement ci koñ yi nga xamante ne dafay taa bu tawee day taa am na problème assainissement am na problème sécurité boo ci xoolee fu mel ni ci Thiaroye kaw wala nga xool foo xamante ne euh, euh, dafa mel ni ginnaaw raay wala nga xool ci yenn ko ñu Rufisque yi yooyu yëpp ñu cay liggéey wala Kër Massar nga jël la question de sécurité de l'eau tey ñu ngi dans la zone de la Falémé diggante Bakel Kidira Tambacounda nga jël la vallée du fleuve Sénégal mooy zone Saint-Louis bi di wàcc.

ay avons ndaw ñu ngi des organisations de jeunesse ay kuréelu ay jigéen ñu ngi ci des mouvements et organisations euh, de femmes waaye itam am na euh, ñu ngi koy def ak les associations de personnes handicapées di ko def les associations de femmes sur les questions de la santé Nous avons les Linguères mën naa la fédération sénégalaise des habitants mën naa la fédération sénégalaise des personnes handicapées euh, euh, le comité de veille et d'alerte de la de la Falémé waye nak mu am itam ay kuréel yo xamantene sen xam-xam xawna gëna match touti ci walum politique ak finance publique ak ci walum fiscalité mu bañ nek des organisations à la base waye don li ñu des organisations de la société civile lu melni ni forum civil lu melni ni ONG 3D euh, lu melni ni l'ordre des experts fiscaux euh, c'est ce qu'on aurait appelé des organisations professionnelles ou des organisations spécialisées le cadre des journalistes en, assainissement le CRAGEA les délégués de quartier on a un portefeuille actif ñu ngi dimbali wala ñu euh, la bonne gouvernance

Euh, li ñu fukki nit di gas fukki nit di suul bi day bëri lool du du le citoyen sénégalais bi nga dina am le comportement euh, le savoir le savoir-être et le savoir-faire bi nga xam ni bu taxawee ba jàkkaarloo ki nga